Jungle. ngeen jëf mbokk yi tey jii ci àllarba ji yemoog le 18 novembre atum 2020 ñu dikkaloon leen ci benn village bu nekk ci commune bu Mbar ay xeexoo ak ay jàppante yu amoon ci jamono ji ñu génn ci diggante sàmmkat yi ak ñi nga xam ne ñooy baykat yi ba yàlla dogal nag kenn ci ñoom ñàkk ci bakkanam moom la mbir nag ñu koy toppandi ba jamono ji amaguñ ci lu leer ba tax na police ak gendarmerie ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngànk boobu la liggéey ubbi nañ ci ab enquête pour xam dëgg-dëgg mbir mi nan la demee ba tax na nag ñenn ci ñi nga xam ne ñàkk nañu seen doom yëkkati nañ ay kàddu ñu teewlu leen man Alaaji Aliou Ka la tudd ci kër gi la juddoo fi ñu koy waxee nii euh, ñun ñoo warale ndaje bi suñu doom suñu rakk moom moom moom moom la ñu reyin ci lii mhm. am nañu lu ñu nakkari nag ci rey bi mhm. rey nag mosut baax fenn mosut nekk fenn waxuñu nag fii mooy première wala fii lay mujjee waaye ñun am nañu lu ñu nakkari parce que bu fekkoon ne xale bi bi muy sàmmi dafa yàq ñu rey ko sax ñu xam ne moo yàq erreur ñëw na mhm. naar ka ki ko rey ak moom daaw ka ki ñu rey yëpp suñu njaboot benn lu tax loolu ah, ay su dëkk bi yëpp seen turandoo ñu ngi li ma waxoon léegi village bi am téeméeri at ak fukk ak juróom ñaar mosuñu daggal loxo kenn fii ci village mosuñu mosuñu rey kenn fii ci village loolu mosul am ci Thiély Pathia kon bu ñu toogee boo erreur bi am commandant jógee am recherche am léegi ñëw costé def lépp def dawaaram def dossier am dem ñibbi ñu dem ñu xam ne ci mbooy lañ fekk suñu maire jóg wax ne loolu amut da ñëwut fekki wut dañun ci moom lañu baasoo mu ne ci biir tool bi nayi foofu la foofu la ñu ko reyee dafa doon dow ku ñu dagg tànkam xar boppam gor ko jaasi ci ci ci biir ba butit génn est-ce kooku mun na daw même bu doon sax ci biir tool bi kon foofu lañ koy fekk délégation boobu waa waa Kër Naar Diène naar naar Ka moom ak ki ñuy wax Ousmane kan ñun xam nañu njaboot bi ñun ak ñoom ñoo juddandoo fii ñu màggee fii kon xam nañu ñuy béy si tool ya ku ñëwut sax ku tardé liggéey xam nañu kon bu ñu yoree ñeenti sare ñeenti sare yooyu bu fekkoon léegi ci li ñu wax ne ne ay xale ñoo ko yoroon waroon nañu leen fekk ci ci xaw yoon wala ñu fekk sare ji bi ci tool te sare yi lu tax ñu jadda boo ñu dem lu tolloog fukki mètre wala ñaar fukki mètre ñu taxaw ci bopp ki ñu rey ñu fekk leen foofu ñu waaye bi ñu jógee ñu wax ñun tam ñëw ñu teew si loolu dañu wax xale yëpp gàcce ngaalaama jar ngeen jëpp taxaw leen ngeen déglu kenn du xeex kenn bul kuloo bul saag lu ci yoon war a def dina ko def lu la yaakaar kon bu ñu jógee suñu meer ñooñu sëriñ Ousmane Ka sëriñ la suñu mbag la xana euh, wetee Serigne Serigne Ka ak Ousmane Ka mooy seetu de village bi Serigne Ka Mbay Samba nee na moo ko wax ne ne man man man Serigne Ka chef du village ci la man maa teew man maa gis xale bi ci nay ci biir loolu loolu rafetu nañu loolu loolu nekkuñ parce que mu ngi mu ngi doon boole ak moom ak Ousmane Ka bi mu jógee njenne dégg na am na ku dee mu ñëw fi fekk fi suñu nijaay ak suñu suñu bajjan mu ne ko eh, dégg naa ay sàmm ak olo ay ak sàmm ak béykat eh, gaañante nañ mbaa du ci dëkk bi mu nekk kër alaji xoga jam laa ma la amee suñu pap mu jooy mu naqarlu loolu seen wax de suma wax parents yi laa dégg parce que bu ñu doon boole wala ñu ngi doon sos duñu wax duñu waxal kooku loolu mu ne loolu defaroon fi daanu mu dem ñibbi Ousmane ñëw teew bi ma ko waxee téléphone bi ma ko waxee ma woo ko téléphone mu ne ma man ak sa rak ku ñu wax say ko mu na ma seede ñun ñoo tombeloo foofu ñun xamuñu ci affaire bi dara ci suma téléphone bi ma jokk suma numéro a ma ne ko loo soxla ci man loo lifin man maa ngi toppala ci yow loolu parce que ay kilifa ngeen lii am na njëwal leen ngeen jooy leen ngeen di yokk leneen problème suñu diggante ak yéen loolu dina métti ñun nag ñu ngi seet ndax ñoom ñoo ko wax wala waxuñu ko wala mbay samba moo leen sosan loolu wala mbay samba ma bëgg ñun ñu am ñoom histoire wala am déet comme dawaar bi li mu war a wax foofu am na ñu ko wax ba pare waroon na ñëw fi massa wu ñu rek. waaw même bu fekkoon ñu ngi def lu ne wala am na xalaat léegi faral ay mbokkam ñun xam nañu loolu. même bu ko waxoon ñun xam nañu parce que xam nañu ñu mbokk bi mel. ni ñu xamee suñu bopp noonu la ñu xamee ci biir dëkk bi. suñu doom li ñu ciy ñaan. daaw Dakar ci ci ci carrière am la doon commencé. jabaram mu ngi fi toog am ñaari doom yu xale yu góor ñu ngi fii xale yu ndaw dee na bàyyi na leen fii daaw Dakar dem na dootul ñëw. nguur nañu toppal. ku bokk ci action bii nañu ko teg loxo ñu jaarale ko yoon ku ci bokkut ñu ci moom benn soxla du ñu ci sosal kenn loolu gën a lu parce que suñu diggante ak suñu bàmmeel da ngeen a jàpp ne am na ñeneen ñu des parce que ñeenti sareet mënuñu ko fekk ci bopp ku ñu ne ñu ne ay xale ñoo fi nekkoon wala ay jigéen kon mbay sambana taxaw mu ne ñu diw ak diw moo ci bokkoon ko xam na ne ay xale ñoo ci nekkoon na nañu woon ne ne kii ak kii moo ci nekkoon ñun bi ñu ñëw fekk ñëpp dow nañ dem nañ ñun toppatoo wuñu bu fekkoon ne amoon nañ yara dik wala leen xale yi bu ñu leen gaaroon at mun nañu gaañ mbaam ñu ne ñoo gor mbaam wala def nañu def nañu wala def nañu ak leen waaye loolu ñun dañuy dañuy maîtriser loolu ko def hmm. parce que lii am na am na ki xam ne yéene lii am am na ki yéene ko woon <coughs> dégg nga lii suñu métit loolu li kii waxoon fii rek moo fi am hmm. parce que tey nag dina fekk ci tool loolu la ñu wax hmm. tool yi itam dina fekk ci ay nag parce que fii ay ay ay ay ay ay ñun fàttali ko fii ay ay ay tilli ak lu ne ci àll bi daal kenn du ko béy waaye béy nañ béy nañ même yoon yi ñu mayoon nag yi ñuy jaar yëpp béy nañu wala ñu béy fii benn tool ñu bay mbooy fu sori mbooy boobu ala kulli anin bu demee ba nga góob wala nga nga naaf nit mun na fi problème ko dem ci tool ba war mun nañu war war a bay loolu nay yi mën a àggaj fa waaye bu fekkee léegi yow yaa ngi yaa ngi baare àll bi nag yi duñu fa ak te nag yi fii lañ dëkk borom tool yi fii lañ dëkk kon war nañu ñaan loolu ñu jàppale ci loolu ñu yaatal yoon yi yaatal alal wala ñu may may benn ay hectare ñu ne léegi sàmm leen fii ñuy béyee fii xam nga loolu mënut am léegi nay fuñ fan lañ leen jëmee dañu leen di yeew rek ñu ngi leen xool rek nu nekk mhm. ñun depuis téeméeri at ak fukk ak juróom-ñaari ñu fii nag mosu fi jóge béy mosu fi jóge xar mosu fi jóge ba tey demuñu sàmmaani ba tey suñ li li fekk fii lañ lañ topp ba tey mhm. dégg ba ma ñu ngi ànd ak moom ci loolu léegi nag mbay samba li mu wax ñun loolu moo ñu nakkari loolu moo ñu métti yoon bu ci mu mënee def yoonam def lu mu war a def naka def suñu diggante ak mbay samba pour loolu amut ñun am nañu droit bu beneen yoonee encore ñu ne léegi nañ nañ def nag boo demee nga fekk ay nagu jàmbur ci ay mbooy fekk ruural nañu la comme ku ruuroon démb xamuñu kan la yow xamu kan la nga fekkee ma ci wetu foofu man maa ngi soog a ñëw nga ne yow dama jël sa marque bi dama yóbbu commune rurale ñu fay ren def nañu leen loolu ay xale yu ndaw ñoo sàmm te ruur bi comme démb woon ñu ne léegi nañ yóbbu ba ba ñooñu ñoo wax ne ne fay leen fukki junni yi fay ñoom ñu bañ a histoire ñu fay te waroon nañu def ay constat ñu def ay ay ay ay ay ay ay euh, ñu ngi teg sa sa ñëw vérifié bu ñu vérifié ñu ne lii ak lii lii jaadoon lii jaadoon waaye loolu amul yow da ngay demandé rek wax nañ nañ jël ay marque kon kay damay toog suma tool rek suma nawet baaku yaakaar naa li ma leboon mënu ma ko fay ma nay doom ba ma ne jël naa seen numéro euh, seen seen marque diw na ma fay xam naa ko lii nag bu dakku nag histoire beneen dina sukkeeku xam fan lay sukkeeku nag ci àddina bi